moom Ousmane Sonko dafa ne caisse noire dafa dafa xaraam di déggul caisse noire de. non mais ils sont là à peine. le jour ah waaye mais li ñu bëgg a lijjanti ñu ngi koy lijjanti Ousmane il a quoi il a quoi en tant que premier ministre. xaw ma ko. est-ce n'a pas quatre cent quatre cent quatre cent millions. par weer waxal loo xam de waxal <laughs> loo xam de. xaama génneel la ko damay wax lu ma xam de du ma wax lu ma xamu de Ousmane Sonko a a a une caisse bu mu am moom Ousmane Sonko. Ah am na kees oui kees am est-ce que eggul 650 millions. par mois na ko dindi par mois par mois na ko dindi. foo déggee information dama ne la Ousmane a une caisse noire c'est aussi premier ministre du am xaalis duñ ko duñ amul kees boo xam ne yow boo soxlee mu fajal la man su ma mu fajal ma te ñoom yooyu ñuy kaas du pour moom loolu pour Sénégalais yi am soxla ci moom la en tant que premier ministre war na mën a faj ay soxla en tant que premier ministre war na mën a faj ay soxla bu fa jógee tamit du ko du ko topp keneen lañ koy jox. léegi euh, gouvernance bu sobre. bul tëb kañ la ñuy dindi kañ la ñuy dindi loolu. ils sont là même pas encore un mois. on a encore le temps la peine d'être pour un mois pour dindi. quelque chose ils fait des décrets. ba def nañ fi ay ba def nañ fi ay décret yoo xam ne doxewul ni ko bëggee dañoo am calendrier am am am am. Ah. donc foog foog nga may leen tuuti. je d'accord ñoom ni ñu bëggee eta état doxewul noonu te ba ñu nekkee ci opposition bi dafa am nu ñu bëggoon état doxee waaye bi ñu duggee réalité dab na leen. vous parlez comme s'ils sont depuis trois ans ou quatre ans ils viennent à peine d'être élus. Euh, l'état c'est une continuité quand même. ki fi nekkoon am na lu mu bàyyi a des actes à na lu yeggale li fi kooku bàyyi. tey def teg ci leneen pour man du ay wax nawet baa ngi ñëw nañ ci nañ ko lijjanti. booy yaa ngi ni tabaski baa ngi ñëw nañ leen may ñu tabaski ba pare booy ambulant yi fa 750 000 têtes. oui loolu laa déggagum. oui waaw baax na nañ ci nañ ci nañ fi bàyyi rek te yóbbuñu ci jàmm salaam ñu xool parce ñun moom ñi ñu ñu yor kër gi ñu ngi bëgg a dee. luyaas bi aussi bi fi mag yi waxoon ne nañ ko wàññi comme que moom defu ca woon la mu ca war a def wala ñam ko tegoon seen loxo defuñu ko ñoom nañ ko yeggale luyaas baa ngi bëgg a rey li metti dafa bëri fii ci Sénégal de. Mhm. et l'emploi des jeunes te ngalla nag buñ ne ngalla euh, mais Bassirou Diomaye Faye ñu wax ne guerre guerru Israël baak guerru nangam ñun buñ ñu ko indi parce que Macky nekkoon na fi Covid am guerre am lépp am mu terewut li war a dox di dox mhm. nit ñi di añ di reer di ndékki kon buñ ñu indi